coordination départementale PASTEF Linguère, qui regroupe les 19 communes du département, renouvelle, renouvelons notre engagement et notre soutien au projet de PASTEF porté par le président Ousmane Sonko. En outre, notre coordination exprime son indignation totale face au complot aussi bas et vilain ourdi pour détruire, discréditer, humilier le président Ousmane Sonko. aucune adversité ne saurait justifier l'utilisation de ces moyens immoraux, l'usage de l'appareil d'État tel que l'Assemblée nationale, pour venir à bout à un homme dont le seul tort est d'être un patriote. Nous sommes plus que jamais déterminés face à cette dictature en usant de nos droits constitutionnels et légaux. Et là, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin et nous exigeons la libération du président Ousmane Sonko et de tous les détenus politiques qui son victimes non d'une détention mais d'une séquestration asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan di ñu déglu ñun waa coordination PASTEF département bu Linguère ñoo woote woon ndaje bi tey di tàmbali di jaale ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci xew-xew yi di massawu ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen alal wala gaañ nañ leen ci di wax ne Pastef encouragé wul ñaawteef yooyu ñun waa coordination départementale Pastef bi nga xam ne moo ëmb tey fukk ak juróom-ñeenti communes nekk ci département bi ñoo ñëw di yeesal suñu njàppale ak suñu taxawaay suñu engagement ci projet bi nga xam ne Pastef tëgg na ko jiital ci bopp bi le président Ousmane Sonko Ousmane Sonko moomu dégg ngeen fan yii ñu koy tuumaal teg ci moom ay tuuma yu rëy rëy rëy ci mel ni li liñ ci wax lépp doy na duñ ci dellusiwaat ñaawteef googu ñépp xam nañ ñi nekk ci ginnaaw sénégalais boo jël tey la majorité dinañ lii ay caaxaan la bi ñu demee ba dugg ci biir xam ne lii nag amatuñu lenn lenn loo xam ne nii war nañ ko mën a vérifier ñu wutaat yeneen motif ndax Ousmane Sonko dañ ko le président Ousmane Sonko dañ ko convoqué mu war wuy ji mu ne woon du dem parce que dañoo salfaane àq ak yelleefam yépp ba mbir mi tàmbalee ba léegi ay tooñ lañu ko teg waaye ci rus sénégalais yi ci bëgg réew mi ak ci am kilifa mu déglu ñépp daa sax waññeeku ci lu mu waxoon ne dinaa wuy ji ngir lii ak lii ak lii ñu nangul ko loolu senegal gi yépp kontaan ci mu xëy sol mbubam mu rafet taal otoom ànd ak ay mbokkam ay mbokkam benn oto ñaar luñ ko permettre kuy wuy ji fii kuñ fi woo da nga ànd ak say mbokk bu mu génnee nag nit ñi ko bëgg ñoo daw topp ci moom loolu nag président Ousmane Sonko wootewu ko waxu ko waaye nag mbëggeel nag fa muy toll ci nit moom ku ne xam na lim la mën a def lool. donc président Ousmane Sonko nekkoon ci yoonu wuy ji gis na nu taxawaayu préfet bi moom dañ ko jàppee ne bokk na ci nga xam ne dañ leen a yónni rek pour toujours yeggale projet boobu mooy liquider la personne de Ousmane Sonko et projet Pastef ñi fexe bëgg ko détourné ci yoon bi mu bëggoon a jaar ay waay Ablaye Wade gis nañ fii bu ko Abdou Diouf doon convoqué bunt université jaar ànd ak étudiants yi ñu ko neex dem wuy ji te Abdou Diouf mosul pipe moom ba ci Idrissa Seck ba ci Macky sàll mii rek bañ ko waree convoqué ci gis ngeen daanaka miting la def ñu bëgg a bañal nag Ousmane Sonko di wuy ji bëgg ko wutal yoon te kenn xamul sax lu woon ci yoon woowu ndax ñin ko seq duñ leen wóolu musuñ ndax seeni jëf ak seeni wax ci loolu nag ñi demaat ba ca biir ñépp a ngi seetaan parce que télé yi tey ak télé yeeg internet dara nëbbuwul gis ngeen li ñu tegaat ci ndoddam mooy dafa taxawal am ndaje moo xam ne dañ koy aaye daa di bokk ci ñi nga xam ne mën nañoo jaxase dëkk bi muy nekk ay tuuma encore yu ñu tegaat ci moom donc génn nañ daanaka ci viol bi tegaat nañ ci Ousmane Sonko ci loo xam ne matul sax ay bés yeneen tuuma ñu dajale loolu lépp nag xam na nag mbir maa ngi ëpp parce que boobaak léegi nag on a essayé dañoo jéem a jàpp ne yoonay dox donte ne xam na ne yoon mosu fee dox wala doxalul na mu war a doxe ci loolu nag moo tax ñu am tiitaange lool tey Ousmane Sonko di suñu président nekk yaakaar yaakaari ndaw yi parce que lu mu wax ak lu mu teg ak ni ñu ko xamee ñu topp ci ginnaawam ñu xëy kooku jàpp ko te muntuñ ko gis ak gis ngeen jàppee léegi ci xew yépp di ko xañ ay avocat am ñu koy gis kon ñun ñooyee ñun nag coordination départementale de Linguère dañoo jóg di yeesal rek donte ñu ngi woon ci xeex bi suñu ànd ak moom suñu jàppale di wax nag Sénégal gi yépp ak àdduna bi yépp en l'occurrence l'opinion internationale ñu xamee ko ci ONU ne leen ñoo ngi seetaan te comme ñoom fa la doole yam ñoom ñi mën a wax ak suñu njiit yi nga xam ne dégguñu kenn lu dul liñ bëgg a def ñu ngi wax ak ñoom ñu wax parce que nee nañ force reste à mais la loi part du peuple ñu ngi leen di wax nag ñu ñaan te delloo ci ginnaaw teg affaire yi ci suuf delloo ku nekk axam yelleefam parce que Sénégal démocratie dañ ko doon way fu nekk ci àdduna waaye lii tey foo wër ci àdduna ñu ñuy reetaan ndax lu ñaaw la koo wër ci àdduna danaan l' opposant bi nga xam ne moom moo gën a nekk opposant Sénégal tey ñu ngi jàpp ci lu luñ ko jàppee ay waxu siif ay waxu lii ay waxu lii loolu rek gàkkal deru démocratie la te nag ñii fi nekk tey dañoo fekk ñi tabaxal leen am réew nit ñi tuur ci deret ba réew mi taxaw ba démocratie am donc ñoom waruñoo bokk ci ñuy salfaañe démocratie boobu ngir suba ci loolu nag lañuy jeexal suñuy kàddu di ñaanaat ñi nga xam ne ñoo ñu jiite yàlla delloo ci seen xel ba ñu xam ne nguur jarul yenn yi Ousmane Sonko Pastef ak ñeneen ak ñeneen ñi réclamer lépp li ñuy wax weesuwul nañu delloo suñu àq suñu yeleef nous voulons la démocratie jàmm na ñooy loolu daal lañuy ñaan di ñaan jàmm suñu réew Sénégal am naataange waaye nañu tebleeg ci dëgg waaw ànd bi rafet ci jërë ngeen jëf. wax nañ léegi suñuy kàddu ci français que le droit constitutionnel dafa may képp koo xam ne nii. dañoo salfaañe sa àq ak sa yelleef nga manifesté wu wootewuñ kenn ci violence ci xeex ak ci toj ak ci sàcc ndax ñun ñi di manifester sax suñu drapo Sénégal la ñuy yóbbaale donc nag ñun ñu ngi ci à notre manière wootewuñu ci yàq woote wootewuñ ci toj waaye nag su le droit constitutionnel moo ñu garantir ne bu ñu amee lu ñu naqari ñu jooytu ko te ci loolu la ñu nekk. dana département bi. moom bu ngeen gisee taxawaay bii rek xam nañ ñu ci te suñu taxawaay mosul weesu lu dul xeex li ñëpp di xeex en fait dañoo xeexalul kenn suñu bopp la ñuy xeexal parce que Linguère génnul ci Sénégal Sénégal am jàmm Sénégal am démocratie Sénégal am. keeraange ñun dañoo bokk ci Sénégal googu donc dañoo war a bokk ci ñu koy xeex. waaw xam na ko def xam nga génn ministère intérieur rek ava d'échec la parce que réew mi fi mu toll nii yaakaar naa benn kàddu la ñëpp doon xaar mooy ki jiite ñëpp ndax ministère de l'intérieur dooleem am na fu mu yem intérieur la jiite jiitewul force armées nag gis nañ coow li armée sax bokk ci donc ki waroon na génn dajale wax yépp mooy le président de la république. mooy Macky Sall mi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko fal ndax ministre de l'intérieur Macky Sall la ko fal mais Macky Sall la sénégalais yi fal bu sénégalais yi nekkee ci jafe-jafe ñu xaar kenn mu wax dalal seen xel delloo réew mi ci jàmm muy le président Macky Sall waaye gis ngeen boo waree boo waxee te waroo wax toujours boo waxee nit ñi jépp la te looloo ko dal wax ju mu fi wax jeesu lu may daanaka wax yoo xam ne ay tuuma la ci sénégalais yi terroriste di baat bu rëy te Sénégal ku xam ne islaamu jàmm la ñuy dund ay vandalisme Sénégal ku ne xam ne jàmm la ñuy wëpp sénégalais jàmm waaye nag ay nit ñoo xam ne nii ku bëgg a salfaañi seen àq ak seen yelef liñ moom ah dañuy jàkkaarloo ndax olof danaan ginaar sax boo ko dàqee ba ci miir ba li muy ñàkk doole ñàkk doole dina waññeeku jàkkaarloog yow te loolu moo ñuy bëgg dal ak ñii ñu nekk nañu respecté waat sénégalais yi xam ne ñoom ñoo leen fi faloon ñun ñoo xeexoon bi fi Ablaye Wade ak ñeneen fi jiite woon bëggoon a teg dictature wala monocratie ba ñëw ñu andi fi Macky Sall am ci moom yaakaar waaye mu ñëw tey bëgg delloo si li fi nekkoon wala sax def lu ko raw ah fañ taxawoon rek lañuy taxawaat. c'est hmm.